kamu yalla te roy ki sa chaduna ni genni wisilen wo te manni de moy yamu yalla te roy ki sa chaduna gena jakagam jigen shahi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 wa naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum mbokk yu tedd yi gannaaw ba ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu leen di nuyu. nuyu bu gën a sell di nuyab lislaam mu di jàmm yàlla ak barkeem ak yërmandeem yal na ko yàlla wàccee ci kenn ku nekk ci yéen wàcc ko ci ñun wàcc ko ci àdduna bi yëpp. ñu ngi am mbégte toogaat ak yéen fii ci seen télé bi ngeen taamu muy IMTV. ak seen émission bi nga xam ne du ngeen ko tàdd muy femme musulmane ñi leen koy defal altine bu jot ak talaata bu jot ci waxtu bi ñuy nuy ñëpp di ziyaar ñëpp di jiital nag ci nuyoo bi waa Islam TV di leen nuyu di leen ñaanal yàlla subhaana wa taala yàlla eggale leen fi ñu bëgg egg di ko nuyoo sunu doom yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu technique bi ñoom tamit eh, yàlla jàppale leen eggale seeni projet di ko nuyu nag waa réew mi yëpp macha allah di ko nuyu waa diaspora bi yëpp bàyyiwuñu kenn eh, noonu lañuy ñuy ànd ñi nekk ci mbégte tey di ànd ak ñoom di leen ndokkeel ñu nekk ci naqar ñu leen di massaw ñu nekk ci tiis ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na ko yàlla teggi tey nag ñu am mbégte ama nag eh, am benn jataay ak yéen ak sunu benn gan gu tedd macha allah ci émission bu ama am solo tomb yu ama am solo <coughs> euh, incha allah ci kanam tuuti lay ban balaa boobu ma jox sama doom sama xarit Fatima mu nuyoo kon salaamaaleykum Fatima. waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay fay nuyoo di sant borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam te moo di ñaan ko mu njabootam ak ay saxaabaam ak jullit yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo safoo IMTV di ko seetaan. ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu yaay ñuy wax ni ñaan yi nga ñaan yàlla na ko borom bi subhanahu wa taala nangu def ko ay xasanaat def ko ci misaanu xasanaat di ah, xanaa di bañ gudda rek di la nga dalal sa gan insha allah bàyyi ko ak mbokk yi insha allah ñu déglu ko di ah, ni ñu ko ànde woon semaine bële passé Euh, ubbi woon benn euh, bunt bu amoon solo ci war a waxtaan ak sunuy njaboot sunuy famille ci li nga xam ne tey jii moom gaa yàgg na xew gis nañ ci ay inconvénients yu bari waaye léegi dafa roy dafa dafa dafa yokku euh, mbirum xeesal daan nañ ko gis moom yàgg na fii nit ñi di wut di laax di mélanger di jaxase Euh, gis nañ ci ay jeexital yu yu xaw a metti tuuti euh, waxoon nañ ci mooy indi woon ci ay image yu doy waar euh, nga gis kanamu jigéen ñi bare tey yàqu daal di cere loos yi mel noonu ñuy def produit yu bari pour mu dañ mu jafe lool nag yooyu nekk loo xam ne day yàq taaru jigéen léegi nag sunu doom yi ak sunu sët yi nag soobu ci beneen anam boo xam ne ay doom lañuy naan ay pikiir la ñuy def ñi leen di piqûre xamoo sax ndax docteur lañu wala duñu docteur yàlla rek a xam ñuy piqûre piqûre yooyu boole ceeg nag euh, loo xam ne dafay yokk seeni ginnaaw di yokk seeni ween di di di di di xool seen yaram daal façon yoo xam ne léegi nag loolu boo ko gisee ci njaboot di nga waxtaan ci wàllu diine waxoon nañ ci wàllu diine bi macha allah ak oustaz Sayid Diallo diine ni mu ni mu dàqee loolu diine ni mu ni mu ni mu bañee kuy contre yàlla. ndax yàlla ni mu ñu sàkkee juumul kenn ku ci ne nag bu toogee rek doyloo yàlla day gis boppam ku xees ki na muy gisee boppam ci taaram pourtant ku ñuul ki noonu la war a gisee boppam ci taaram waaye euh, gis ci euh, kii mànnu yàlla ci réew ma mu nekk ak climat ba mu nekk na ko yàlla préparé yooyu yëpp waxoon nañ ci tey nag il faut ñu ñëw nag ci beneen anam bi te diggoon nañ leen ko muy wàllu santé wàllu docteur xëj na ñun nu ñu ko gisee nii seetlu ne am na ay jeexital yu doy waar yu mu def xëj na ñoom docteur yi tamit gis nañ ci yu demee noonu wala yu ko ëpp sax moo tax tey jii nag yàlla boole ñoo sunu benn euh, càmmiñ docteur bu am solo macha allah soxna euh, maanaam Serigne Ndiaga Ndiaga géey nekk docteur boo xam ne euh, wàllu der ci lay liggéey wàllu der mooy dermatol ci loolu lay liggéey kooku moom bu toogeek ñun defe naa ne dinañ ñu ci mën a wax yu bare bare Eh, balaa boobu dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu xam mooy kan ba pare nag ñu soog ñëw ci point yi docteur tey laaj yi bare na dékkul laaj rek waaye laaj yi ñu am bare na sakkan macha allah kon docteur ñu bàyyi ko eh, docteur Ndiaga mu nuyoo salaamaaleykum docteur ñu ngi lay dalal bu baax ci seen télé Islam TV salaam soxna mhm. si invitation bi alhamdulilah eh, merci beaucoup ñu ngi nuyu sunu ñi seetaan suñu internet yi mhm. di nuyu suñu caméraman yi soxna yi ñu bokkal plateau bi mhm. macha allah jërëjëf docteur bu ñu bëggoon xam yow yaay kan eh, man may tutu njaka njaka njaka gay jaga gay njaka gay waaw je suis dermatologue mhm. eh, maa ngi nekk euh, hôpital régional de Thiès mais nag fii laa liggéey bi daal laa dëkk mhm. dina nek aussi hôpital euh, yëmbal mm. centre de santé de yëmbal aussi dina mm. fa nekk macha allah voilà macha docteur Mbaye gis leen jafewul euh, non non non non non gis ñu parce que léegi actuellement ni hôpital yépp am nañ am na am na dermatologue centre de santé aussi mm-hmm. am na dermatologue Dakar rek banlieue région yi yëpp am na dermatologue actuellement mm-hmm. donc il suffit que nga dem si ñoom wax leen seen problème souvent ñu réglé ko mm-hmm. voilà ci wàllu poste bi mbaa du cher trop nos consultations, c'est comme consultations et hôpitaux mhm. Chez Roule, souvent, ça tourne autour de 3 000 à 5 000 francs. Souvent, souvent, hôpitaux, ils m'ont consulter centre de aussi, consultés. consulter mhm était souvent 5000 francs bob mun nga si consulter deux fois. macha allah euh, donc je pense que ni euh, seerul quoi. waaw loolu abordable waaw yaakaar abordable quoi voilà yaakaar naa si abordable. parce que docteur dañ leen soxla fi mu ne de comme ñun suñu yaram yëpp xawna na dal daal <laughs> soxla nañ leen nak bu baax a baax bëgguñu di leen wër di son ak yoy kon docteur ni nga ko dégg rek walu der. Mhm. liñ ci def légui def na né xéssal mom am ngeen ci yéen tamit ñun dégg nañ ci daal lu bari ñu naan yenn docteurs yi da ngeen di dem ba am problème euh, soxna si su feebaree euh, yàlla bu mu am nag wàllu opération euh, dégg naa ñaw ko day jafe boo moytu mën na jëlaale bakkanam ndax kenn du ko mën a sauver. waaw ah, loolu dëgg dégg naa loolu loolu dëgg la. Mm-hmm. Eh, mais pour commencer rek dañuy commencer ci commencement bi. Mhm, mhm. parce que bon xeesal so xolé yag na fi. deug la ah, eh, sunu yaay yi sunu maam yi doon mhm. nañ ko def. mais ñom niñ ko doon defee peut-être ak légui xalé niñ ko ñu bokul defee bokul puis soy commencer da ngay commencer lan moy xeesal d'abord. xeesal moy eh, lepp lu nit di utiliser. luy changer deram. lool moy xeesal. dinga gis ku ñëw consultation na la man defuma type.

am tam dañu ay glutathion yu ñuy injecté wu loolu yëpp ay ay produits yu ñu xeesale la. Mhm. léegi nag li si gën a doy waar actuellement ni mooy mélange yi nit ñi def. Mhm te do xam réellement lan moko composition bi lan moo def loolu moo ci gën doy war actuellement te ku nekk ngi def say mélanges mm-hmm. di jaay ni ñi di jënd di xeesalul loolu moo tax nak voilà voilà lepp la utiliser lepp la utiliser lépp xeme mm-hmm. au de javel mm-hmm. lépp la oh. def acide bi vaseline salicylée lépp la ñuy mélanger dugal si biir doo xam lan la. boole koog laxas ci tool bu tàng jër. voilà voilà voilà loolu souvent ñiy faral di ngénte. Mhm. ñi faral di préparer xew ñoo koy def. Mhm. da ngay ñëw def sa xeesal ba pare. Mhm. def say toile bu defee mu gën a rocci moo gën a garaaw. moo gën a garaaw jiwu bi simple boobu ko ça noonu rek. tey yàlla ñun fu ñu jëm euh, docteur léegi nag euh, euh, ci wàllu googu dafa am ñoo xam ne dañuy def li ñuy wax. tatouage manam yaram bi ni peinture mom tam bobu ba amul effet yenn say nga gis ko peinture kaw ween yi bir bi nak bi ginaaw geek yëpp dañ koy peinture loxo yi ba nga xam do xam sax nu meloon peinture bobu mom ba amul effet. oui peinture bobu parce que souvent tatouage lañ koy wax mhm. c'est que souvent do xam produit biñ lay defal tatouage bi lan la. voilà ak fan la jógee. mun na nekk për yoo xam ni c' est cancérigène. Mhm. te yow doo ko xam mun na indi à la longue cancer bi. Mhm. et puis mun nga ko def ba en certain moment nga nekk xale. Mhm. nga def ko mu rafet trop def dara mais boo demee ba nekk mag. mu xaw la gêné. parce que mag nga kilifa nga léegi nga bëgg ko dindi. dindi boobu nag mooy poser problème. parce que boo xasee ba def. doo ko mën dindi. dama gis ne boo sangoo du dañ moom dafa sax du dañ sangu du dañ xoos ko du dañ opérer ko du dañ. souvent c' est des pour yoo xam ni. liñ ko mën dindee rek te boo ko dindee cicatrices yi muy bàyyi sa yaram mooy gën a ñaaw ko soo ko bàyyi woon noonu voilà mm-hmm. loolu mooy complication yi voilà trop trop trop sax trop te léegi ñëpp koy def gis nañ bu baax ñu mm-hmm, mm-hmm. góor ak jigéen ah? góor ak jigéen ñëpp koy def voilà te loolu amul lu ma yokk ci taar nag gisuma ko mënul la yokk te affaire xale la rek souvent da ngay nekk xale nga ne gis ñu ko def rek nga ne xaaral ma def te doo xam yow conséquences yi les complications yi si nekk doo ko xam voilà ñu gis ne si ñoo xam ni dañ ko def pare ñëwaat si ñun pour jëm ko dindi mais on a d'énormes problème pour les faire enlever ça oh. boo ko dindi tamit day def ay cicatrices cicatrices yooyu sax mën def tout mu oh. ne yeneen complications yoo xam ne sa der mm-hmm indi la yeneen problème yoo xam ne yow. ngay rëccu. mais man su ma xamoon du ma ko def. c'est trop tard rëccu gannaaw jëf la macha allah macha allah merci beaucoup docteur mu mel ni euh, bu ngeen seetloo yéen defe naa euh, feebar boobu di cancer. Hmm. tey la gën a bari surtout cancer de peau. oui gis nañ ni tey la gën a bari. Hmm. mais balaa ma yegg si si cancer boobu dama bëggoon wax tuuti si euh, complication yi xeesal bi di def di def. Mm-hmm. Eh, soo gisee du can affaire du du du cancer boobu rek. am mm-hmm. na complication yoo xam ne par exemple ñu kuy xeesal. Mm-hmm. Eh, lu ñuy wax eh, hydroquinone bi soo koy diwoo. mun na def cere. cere cere yooyu cere yooyu mooy tache yu ñuul yi di nekk si sa baat. si kanam bi si loxo yi si tànk yi. yooyu mooy nekk complication hydroquinone boo xam ni fépp fu naaj bi di laal. Oh. si nit foofu lay nekk.

ay feebaru dermato. léegi nag comme da fay souvent boo utiliser da fay def euh, effet secondaire daf lay xeesal touti léegi nag femmes diko utiliser pour diko ko xeesale. léegi euh, code code yoy soko utiliser. complication yim la ma indi bari trop. mën na yokk say feebaru heure par exemple yow so amé heure heure ñepp koy am. mais yow so feebar so amé heure. ngay diw xeesal heure bobu moy gëna law. mooy gën a bari mooy gën a fees ci yaram yëpp te mooy gën a naqaree faj. soo amee tam yenn feebaru der yi par exemple comme waga bi. si ñuy xeesal la gën a bari. si ñuy xeesal la gën a fës. te et puis c'est des suñu gaal gaal mooy wagga bi mooy gaal boo xam ne da nga koy wàllu rapidement nga wàllu ko sa njaboot yëpp. Mm-hmm. wàllu ko sa doom wàllu ko sa jëkkër. Mm-hmm. sa boroom kër sa ñëpp wàll leen ko. Mm-hmm. loolu tam ci complication yi la.

def la góom mu dagg la mu def góom léegi góom boobu mun na wér que mun nga ko ba ñàkkal fayda mu def infection mu nekk porte d'entrée infection boo xam ne ñoo érysipèle wala érysipèle boobu bu la jàppee daf la siburu mooy def tànk yu rëy yooyu mm-hmm. tekk mu am am mu def daat ay def ay gàmb si biir tànk bi ci mm-hmm. kaw tànk bi Euh, xoolee ko mu def mhm. premier premier motif de consultation par exemple euh, en chez les femmes <laughs> te Erispel par exemple buy dem di ñëw di dem mhm. indi li wax nga ne da dem sol ah, mhm. voilà day dem Bien, am RSPL bi day dem ba dootoo mën sol daal loolu yëpp tam si complication yi la bokk. Mhm, mhm, mhm. voilà macha allah docteur. soo xoolee aussi am na yeneen complication mooy complication métabolique yi ñuy wax métabolique. mooy euh, produit xeesal di joxe diabète. Ah. à la longue soo koy diwoo parce que dafay dugg sa deret. bu duggee sa deret. da lay joxe diabète. Mm. da joxe tension.

même chez la femme enceinte aussi euh, kuy xeesal femme enceinte bu xéssal xeesal japp dom ji. Mhm. dom bi mu ëmb mun def doom bu tuuti naan hypertrophie fœtale mun tax dom bi da fay touti mhm. na def tam yàq bir avortement. Mhm. da koy def day def euh, ay morne torop torop morne day def ay morne ñoo xam dañuy juddu te seen juddu. du jot wala ñu indi bakken wala ay prématuré duñ indi sen juddu du jot. té da koy def. allahu akbar voilà peut-être suñu jigéen dañ ko xamul rek quoi mais suñu xamoon complication yooyu yëpp. Ah, métti na waat vraiment duñ ko def quoi ay waay nag docteur yéen nag da ngeen fee baax nag pour leeral lii lii ñu lii mosuñu ko xam. xalaatuñu woon dina egg ba ci avortement. yëpp xalaatuñu woon ne bébé bi sax di te ñu bari ñu ngi profité fi ñuy ëmb pour weex tàll. te xalaatuñu woon day egg ba ci bébé bi. mu mu judd encore nga koy nàmpal ak li ci sa yaram. allahu akbar Euh, docteur Dal def naa ne boo gisee suñu tension yi kon ni mu baree léegi ak jabet bi ni mu bare te ñu naan du suukar. kon loolu ci la bokk. loolu ci la bokk wax nga dëgg leeral nga soo gisee xale yu ndaw ñooy am jabet léegi. ak tension souvent daawul am. daawul am souvent soo ko xoolee lu bari. Mm-hmm. loolu loolu ci la bokk li gën a waral. Mm-hmm. ci la la bokk. jërëjëf jërëjëf docteur ma bàyyi la nga noppalu tuuti macha allah jazakumullahu xeyran dégg nañ ko lu am solo Fatima macha allah Fatima góorgóorlu leen yéen yéen jigéen ñi yéen jigéen ñi yéen ndaw ñi waaw ñun moom ah ñu ngi noonu. Mbadou ko defee te man nag li ma li ma gën metti mooy produit yu bari jógewul suñu réew. Mm, mm, mm, ñun lañu amoon mooy saabu wolof. di ci sangu rafet lool leer nañ suñu saabu wolof boobu. léegi dootoo ko ji sax lu bari. saabu yi ñuy faral di am kenn xamul fu muy jël. mën naa tudd yenn dëkk yenn Nigéria yenn nangam nangam yenn nangam nangam. produit yeneen yi yi nga xam ne moom la ñuy pikiroo léegi aussi moomuñu ko déedéet fa la lay jógee léeg nga gis docteur bu la naan li ma ci indi sax bariwul tuuti laa ci indi ñu siifoo ko daal di ko pikiroo <laughs> waaw Fatima doy na macha allah yaay am na solo <coughs> trop ñu ngi ci danger bu rëy sax. xay na dañu ñàkk a xam mais xanaa bu ñu xamee. incha allah dinañ jéem a lu sauver suñu bakkan yi. dëgg la parce que bu fekkente ne dañ leen di wax ci diine naa leen dafa xaraam ak yooyu. Mhm. xam nga li ñuy wax lu gën a bari mooy yàlla bari na jéggal affaire yooyu. ak sama nijaay looloo ko neex. waaw kay am na ñuy def lu gën a bari am na mhm. ñuy def lu ëpp gën raw loolu. Mhm. yàlla talul lijjanti ay xeesal. léegi nag bu demee ak waa sama borom kër looloo ko neex. ci jigéen lu mu def lu neex borom këram rek baax na dagal na. comme ñun bu dee ñun ñooy wax yooyu la ñuy dégg. dëgg la bu ñu tegee ko mel ni docteur Guèye macha allah ñu ngi koy jaajëfal ci lim jot indi ñun yaay dañu defe woon ci der bi nii rek lay yem affaire yooyu mais ndekete li muy def moo raw loolu mm-hmm. xëy na sama mbokk jigéen ñi nga xam ñoo fi nekk di xeesal mm-hmm. suñ ko déggee pour seen bakkan rek ñu sofi seen bakkan ak bu njaboot gi mm-hmm. wala yenn ci góor yi nga xam yaay mën nga am ay cité yooyu di xeesal dem ba waga ji bari nga wàllu ko sa borom kër te yéen a ngi tëdd borom kër bu mel noonu bu gisee lii lu mu taaru taaru bu fekkente ne diine safa ko tamit bu déggee lu mel ni dina sauver bakkanam ak bakkanu njabootam xanaa dina ko war a jaral kon docteur macha allah ci li ngeen ni ñun jàppoon nañ ni xeesal bi eggul foofu ndekete yow lii yëpp mi ngi ci ca yaay nu mu ko waxee nii ci xeesal da ngay gis ñu bari boo leen di wax da ngay xeesal dañ naa la jëluma tip comme docteur wax na ko ñu bari dañ naan jëluma tib nangam ak nangam laay diwoo mhm. ah, docteur ñu mel ni dafa am yoo xam pharmacie lañ koy jënde mhm. sama classe ñu dem foofu jënd ko fi mu cher bu bëgg a dee mhm. booy diwu dafay rocceeku rek mais ñoom dañ lay xeesalu ma ca moom ci waxam nee na lépp loo xam mi ngi changé der bi rek xeesal lañ ko mën a tudde kon est ce que nag pharmacie pharmacien yooyu nga xam tamit ñooy jaay loolu docteur te ñoom xam na ni lii baaxul ndax ay docteur lañu xam na ni lii baaxul xëy na bu nekkul comme docteur yu mel ni comme yow tamit jàng nañu xam nañ loo xam baax na ci po ak lu baaxul ci po ñoom it est-ce que amuñu ci responsabilité bu toll ni yooyu tamit waruñu ko indi si dëkk bi di ko fi jaay man ñi nga xam suñu classe gi nga xam ñu ngi ci suñu ruq yaay di jàmb ak yooyu ñoom waxaale mu leen ñooñu ñi koy jënd ñoo tooñ seen bopp ndax fekk loo nga xam ni kii xamoo lu mu jël xeme hors de sevel lu nekk jël na ko jàmbaale ko ci am naa balaa docteur a pare am na benn dëkk bu ma demoon yaay ñooñ poudre la ñuy naan am na ku leen di jaxaseel poudre ba nga xam ne bu ne sa mariage des na quinze jours wala yaa ngi ci sa weeru ngénte am na ku leen di jaxaseel benn poudre rek xawma lu mu koy boole ñu naan ko balaa 15 jours dañuy weex taal. poudre yi ñuy diw ci yaram. xawma fu ñuy jëlee poudre ba loolu la ñuy jaxase naan ko am na ñu koy jo ànd. <laughs> sañ naa nekk poudre rek ginnaaw de benn dëkk bu ma xam du joo fa yëpp demoon fa ñuy naan loolu affaire bi jaaxal na. mais docteur nag comme man ñun ñi nga xam dañu nekk suñu ruq di jàmbu ñiy jënd ñoo tooñ seen bopp parce que li ñuy sangoo leer na leen ne baaxul ndax man damay jël sama eau de javel laal tuuti xeme laal tuuti boraas yooyu yëpp ma jël ko jaxase boraas benn bi dem ci bopp yëpp la ñu jël jaxase nga jël jaxase di ko sangoo kooku moo tooñ boppam moom mi koy jënd ak ki koy jaay ci amuñu benn kayit boo leen jox boo nga xam ni moo la naa yow war ngaa mën a jaay lii xam nga ñooñ ko ñiy jënd ñoo tooñ seen bopp mais pharmacien yi nga xam ne ndax gis nañu benn bu ñu xewal temps yi docteur ñu koy tuddee collagène la xawma da mhm. dafa cher dañ koy jël di ko naan mhm. dafa yokk sa hanche yokk sa kanam lex yi yëpp mooy yokk ngay gën di nekkar xale mhm. boo toll woon comme man da ngay mujjee yaay toll ni maam jaar ay 18 ans yooyu ngay am ca fekk sa 40 ans mi ngi romb ca loolu yëpp dafa lay leeral dafa lay xeesal di la yokku est ce que nag pharmacie yi nga xam ne ñooy jaay lool wala ñi nga xam ñooy dem Vietnam di ko fa jëlee ak yooyu ndax yooyu la ñuy wax li koy dugal ci réew meeg yëpp

forme forme bu bu la. voilà forme de de commerce la bo vraiment bu am la. def bi pourtant ni réellement produit mais comme bi wax produit yi nga pour pour pour pour pour di ko naan pour xeesal léegi am na forme boo xam ne sax moo gën a garaw boobu am na piqûre pikiir yu ñuy piqûru mhm. lu ñu wax po glutathion bi bi ñuy piqûre am nay comprimé am nay piqûre yoo xam ni eh, moo gën a garaaw forme de xeesal yëpp glutathion bi ñuy pikiiru ak comprimer yi ñu si naan moo gën a garaaw parce que boobu eh, dafa jàpp sa organisme yépp lay japp mën hmm. na japp sa rein mën na japp sa foie mën na japp yaram bi yépp mën na ko japp soo gisee ni par exemple euh, rein bi problème rein yu bari actuellement nii yu bari si jigéen ñi loolu si la bokk da koy jël piqûroo ko mu jox la problème mu rein ay dialyse ngay mujj tax ngeen hmm. dialyse ni mu ni mu mettee si Sénégal ak frais yi nga war a fay ak ni mu chéré oh. ñàkk xam rek moo tax ñu koy def hmm. léegi ñun vraiment euh, li ñu si mën na def daal mooy fexe fexe fexe par exemple ba produit yooyu bu ñu dugg ci Sénégal. Hum, waaw loolu baax na wala publicité bi ñu def. Hum, hum. ñu wàññi ko. mais ñun en tant que médecin loolu rek mënuñu ko mais. il faut que gouvernement yi si nekk il faut que ministre de la santé yi fi ne. taxaw ci taxaw si jàppale ñu. au moins publicité bi ñuy publicité télé yi. au moins ñu bàyyi ko. dëgg la am nañ fi ben association bo xamni ne AIDA bu ñuy wax association internationale euh, pour euh, pour l'information sur la dépigmentation artificielle mm-hmm. foofu association boobu dermatologue yëpp nekk Sénégal ñoko bok ñuy dox ci affaire information éducation pour nit ñi bàyyi xeesal mm-hmm. affaire euh, association bobu doxoon ay temps ya passe ay djégo yu bari Bonjour publicité bi si télé mais gis nañ ni commencé mm-hmm. commencé publicité publicité parce que dafa am mm-hmm. pratiquement télé mm-hmm. publicité télé day publicité xeesal. nit ñi di jël par exemple euh, di divulguer

ay femmes nous comme ni. Mhm. sama soxna yi naturel naturel. nga xamni da ngay sa sangul dem sa yoon. besoin de diou. et puis sur nous, scientifiquement. Mhm. Euh, deru yaram soxlawul nous, mhm, li yar nous, na set ko. warul ci mettiwul deful dara mm-hmm. sangul ba set ak saabu ordinaire jiw hydraté ko rek sedd bi ñu hydraté ko mm-hmm. jeex na mm-hmm. loolu la soxla macha allah donc soxlawul leneen parce que tey jigéen ñi nga xam ne ñu ngi dem ba seen yaram chronique yi léegi ñu bëgg bàyyi docteur ñooñu naka la ñuy def am na ñoo xam ne seen yaram yàqu na te mënuñoo teggi seen loxo ndax buñ ko teggee rek mooy loolu xam nga réew mi itam dafa metti bés bo teggee sa loxo ñu ne ki da def ak yaram wa da neex ak neexul ak yeen problème la am ak lu ne ñu duggal la ci ba tax nag ndeysaan dañ cey mooy rek mm-hmm. léegi yeen yeen ki ndimbal ngeen mën yeen pour jappalé len ba ñu génn ci ba maintenir ak seen tey wala mën tané jëre jëf ci question bu amna solo mm-hmm. et ñun duñ ne da leen accompagner mm-hmm. parce que soy xéssal da yaq nga ce ce mélanine mélanine boobu moy tax ñun ñul ñun ndax ñun ñu loolu mooy mélanine. Mhm. si biir peau bi la nekk yow sooy xees yow loolu ngay dindi. Mm. donc boo gisee cancer cutané yi bari fi si si si si at yi mhm. xeesal boobu la. Mm. parce que da ngay dindi mélanine bi donc soleil bi bu ñëwee. Ah. daf lay dugg carrément. Mm-hmm. te mélanine boobu mooy mooy ñu aar mm-hmm. ak soleil bi. Mm-hmm. boo gisee cancer yi da nga ko doon gis tubaab yi parce que ñoom am ñu mélanine. waaw tubaab bi ko doon gis mais léegi daa ngi koy gis si mm-hmm. Sénégal si pays africain yi parce que dañ koy dindi boo ko dindee léegi nag soleil bi bu ñu ñëwee rapidement day dugg sa yaram mooy indi cancer yooyu mm-hmm. te gis nañ ni cancer yooyu mm-hmm. euh, faj ko dafa metti ça va te coûter trop cher ba pare te fi muy mujj du baax. voilà fi muy mujj du baax parce que ñun cas yi am yëpp. souvent la moitié dañuy mujj décédé. parce que dañuy euh, tardé ñëw consultation benn.

Il allah pharmaciens yi yéen ak pharmaciens des pharmaciens yi dañ siy il des produits xam pharmaciens des pharmaciens il y xam dañuy ñëw Sénégal Sénégal y a des Il y dañ la koy bindal nga dem trop trop trop bourse am nga si am nga bi nga utiliser ko gën gën sa yaram normal mhm. complication yu bari yëpp am du si am. Mhm. voilà docteur am nañu maar fi mu ne nag am na jigéen ñu maar bëggatuñ ci dara. Mhm. te xamuñu fan lañ jëm. amuñu la may wax rek la mhm. solution la. solution la ñu dem si hôpitaux yi rek nañ dem jege laaj dermatologue voilà foo dëkk zone boo dëkk ak région boo mun dëkk. amna na dermatologue bu fa nees hôpital bi. wala centre de santé boo dem même amul dermatologue am na ku fay ñëw par exemple chaque semaine benn yoon par bés boo demee nga rapproché wu si moom nga demandé ay conseils. dina la conseil dina la wax nooy def ba bàyyi xeesal. ba nga retrouver sa teint normal te doo am problème. alhamdulilah macha allah docteur yéen tam yéen góor yi nag ngeen dimbale ñu. parce que yéen tam bu xeesal ngeen di ut du ngeen takk jabar bu ñuul naturel encore bu ngeen amee ñaari jabar. bu xees bi <laughs> teg bu ñuul <laughs> loolu moom dëgg la sama moroom góor yi ma macha allah war nañu wax ak ñoom parce que souvent aussi ñoom ñooy poussé suñu jigéen ñi mm-hmm, mm-hmm. ñuy dem xeesal tam naan man dama bëgg xeesal donc da ngay ah, xeesal dangay gis ku takk ku ñuul sax macha allah am teint bu rafet mm-hmm. mais yow ku góor ki yaa naan ko xolal sama soxna xarit ben ni mel bu ñu mm-hmm. àndee xool ni mel mm-hmm. itam yow nga fexé sa jaba mm-hmm. muy diiw par ndànk ndànk muy diiw ndànk ba xéssal ba yàq yaram té yow ko commencé am ay complications yi nga bay fi wut kenen gis nga sunu loolu mooy dëgg nag sunu jigéen ñi ah docteur wax nga dëgg nag góor ku lay def lo dara lo xamni am nay complications té bés bu am ay mu bay fi wut kenen ah. yow xam sa bop oh. deug la yaa war xam yi kat su dem demul kër amul mucc. Mm-hmm. su ma commencé du ma ko mën bàyyi. Mm-hmm. donc te te bu ma continuer dina mel ay complications. bañ mm-hmm. bañ bañ ko commencé. góor bi la bëgg a takk ne la xeesalal ngaan ko xeesalal ni ma mel nii ni nga may bëggee soo ma bëggee nii nga ànd ak man su ma ko ni nga bàyyi sincèrement. voilà loolu moom. te yeneen bi sax sallallahu alayhi wa cee wax lu am solo. Euh, jigéen bu ne war na ko dégg. dafa ne laa taaqata li maxluqin fi masiyatil xaaliq bul topp mukk jaam bi li ko neex ba far nag dem ci li naqadi yàlla mhm. kon kii sa jëkkër jaam la comme yow mhm. kon li ko neex moom pour sa sëy neex nga dem nag ba tooñ yàlla te lii yàlla da koo bañ mhm. parce lii contre yàlla la yalla limu mu nga contre ne man buguma li nga def ne yalla man safuma man bi la bëgg yow deh def ma ñuul da nga joom waruma ah, nangam nangam gis nga kon lolu dafa nek ko xam da ngay da ngay da ngay jàkkaarloog yàlla di diko diko ko di ko absolument mm-hmm. absolument ah, kon lolu wax deug yalla bëgg lu neex sa jëkkër jaru ko jaru ko deug yalla jaru ko docteur ma laaj la nak laaj bu reetaan la mm-hmm. wa ñun nak ñu bëggul magget nak ndax amna produit yo xam duñu magget ñun ñoo magget <laughs> waaw loo ci en fait processus naturel la. Hmm. processus naturel la boo xam ne yenn âge en tant que jigéen boo fa hmm. tolloo. Hmm. foo ça euh, sa yaram changé. Donc mon un processus naturel yenn âge un âge, jëmee 65 ans, 60 ans avec la ménopause. il faut que certains changent, il faut que commence à am yenn rides ak yenn yenn pomme de peau yi yooyu yëpp am na ay solution peut-être oui nit ñee ko xamul rek mais boo ñëwee dinañ la conseil jox la ay produits yoo xam ne mun na dind ay rid mhm. mun na dindi yenn masque yi kanam gi avec la yooyu yëpp mun na ko dind ras yi dana voilà ras-ras dañ am yooyu yooyu yëpp <laughs> yëpp dermatologue yi mun nañ ko ah, dindi actuellement ni science toll na foo xam ne mhm. lépp mën nañ ko peut-être ñàkk xam wala ñàkk dem si ñoom mooy waral lu mel noonu mais yow boo demee si ñoom. loon waxee sa bopp nañ la conseil wax la fi ngay jaar ba du am problème. te loo bëgg dindi sa der mën nga ko dindi te te te doo si frais frais yu métti yooyu parce que li ngay faj li ngay frais. Mhm.

waxuma la sax mais dafay cher ba pare. Mhm. te li nga bëggoon doo ko am. terew nag boo si der la ak tout ce qui est mhm. ni ngay def je pense que boo ko defee doo ko rëccu. macha allah voilà docteur jërëjëf. defe naa ne peau moom peau rek la. Mhm. kon ba tey génnuñu peau ñu ngi laaj ci. bët yi nga xam ne léegi tey ñu ngi ciy def yeneen yi xef ak am leneen lu ñuy dugal ci bët bu di xool mel neneen yooyu tamit est-ce que amul ay inconvénients. Oh, yu inconvénients bëri la am. inconvénients yu bëri la am. Uh-huh. parce que comme pour cils yooyu ngay wax. Mm-hmm. ak ay mm-hmm. teg ay xef yooyu. Mm-hmm. par exemple ki lay tegal xef xamoo loxoom ndax taq na microbe. set na wala setul day jël kii bi rek. Eh, tegal la yow sil bob ñu lay tegal. lool ñu lay tegal mën na am infection mën na am germe. mu dugg sa indi le problème. am nañ ay cas yoo xam source yi tey nit ñi à cause de ça. am ay cas à nañ seen problème à cause de teg wala teg ay lanti comme yi ñuy wax. Mhm. lentille boobu ki la koy tegal xamoon ndax loxoom set na xamoon loxoom setul xamoon ndax matériel bi mu utilisé c'est stérile wala c'est pas stérile da ngay jël mhm. mu tegal la mu la problème. voilà. jigéen ñi daal docteur xamu fu ñu dañuy gën a si rek a kanna si parce que bu sax ci <laughs> bëgg a rafet waaye jigéen daal mu noonu yàlla ñu moo ñu rafet waaye nag bàyyi ci xel yàlla dafa am solo mhm. euh, docteur ñu noppal la tuuti ñun sunu laaj yi dafa bëri Fatima <laughs> Fatima xam nga bu njëkk lan moo amoon. Mm-hmm. pour sa bët sax xaw a rafet. Mm-hmm. daan def couleur bu la pharmacie lañ ko daan jëlee. waa boobu sax moom tane woon na gisuma effet yu bari yoo xam ne doon na ko def. xanaa ñu mm-hmm. laaj ko docteur mais léegi nag lantine boobu ngeen di dugal ni ko docteur waxee. gis nga man yow xam nga dañuy romb marché. gis nga xef yi dañ koy jal ci pochère beeg pënd bi. <laughs> xef ya ak weya nag. ak weya yëpp dañ ko fay jal mm-hmm. te noonu lañ koy jëlee rek ne la ko. tegal la ko si mm-hmm. loolu ay danger la. Mm-hmm. te ni ko docteur waxee noonu la amee man am na sama benn xarit boo xam ne. actuellement du dem lu dul noir fumé yu ñuul kukk. parce que bët yi xoolal bu toogee ak yow nii bu yàggee day dindi weer yi jël mouchoir di fomp rek bët yi day xel rek. ndeysaan te kooku li mu daan yenn ci xef <laughs> attanu ko woon. ba ba léegi la mu cee kon ma xam ne lii danger mu ngi ci mm-hmm. ko docteur gënee leeral mm-hmm. waaw war nañ ci xalaat comme dégg nañ docteur mm-hmm. incha allah ñi nga xam kàddoom jot nañu egg ci moom suñ dee nit cee xellu te bañ a fowee seeni xel dinañ ci bàyyi xel wante comme yaay borom bi subhaanahu wa taala waxoon na ni kal anaam ba yàgg mu ni bal huwa adal yàlla yàlla bañ a tooñ <laughs> mu ni ñii comme ay rab ba yàgg ñu ni ñoo gën a sax yées rab yi ñun nag yaay boo seetloo ci benn côté ci suñu waa côté mhm. suñu wàll ci jigéen ñi ñu ci bëree bëri dañuy utiliser seeni xel mhm. wala dañuy fowee seeni xel comme niñ koy waxee mhm. xam nga waa seen bëgg-bëgg la ñuy xool li docteur wax xam nga yow ko xam xamoo loxoom lan moo ci ne ca mm. gis nga yaay fa ñuy rang di teqeef ya mm-hmm. ànd nañ fa ba ma wan la ko ñu ñëpp a ca ña ñalay kii amul tegal la ba pare dem raxas su ñëw tegalaat keneen noonu la ñuy jëlee col bi waxatuma la yaay col bi ñu ciy def yaa benn boo tàmmee xeef teg xeef da ngay dem ba ñàkk sa xeef dootoo ko mën a defati docteur xuma seetlu nga loolu wala déet ñii teg xef ñu bari yaay amatuñ seen xef bi ñu amoon ni comme normal boobu buy teggee rek kol ga dafay yóbbaale loolu mu dem eh, waa la yàlla defoon léppay dem moo tax ñooñu yaay mënuñoo bañ a ñàkkatee te xef mënuñu koo bañ a ñàkkatee waaw loolu moo leen di jàpp xëy na nag comme ñu ngi déglu ñu mel ni docteur dinañ utiliser suñu xel ni ba bàyyi yu mel noonu xol xel docteur comme yéen dermatologue yi xanaan comme ministre de la santé war ngeen a mën a gisanteeg moom ba wax ko yenn publicité yi dañ ko war a bàyyi sax man na d'accord ma nañ ko wàññi nañ ko bàyyi yenn publicité yi ngeen wax ko ne ko yéen yéen a ngi faj dëgg la li ngeen li ñuy def ci santé daanaka suñ budget Sénégal bi yëpp jël nañ ko def ko ci sante léegi nag ñoom ñoom ñoo fi nekk ñoo ministère yi léegi ngeen wax ak ñoom tamit ni ko ñun li ñuy recevoir ci ay cas yoo xam seen yaram yëpp dafa yam ndax boo cité ba mel ni man hmm. booy xeesal man bu ma xeesaloon tey génn yërëm ma siti bi génn ma wàll sama njaboot wàllaale sama borom kër wàllaale ñëpp mm-hmm. yéen chaque jour yéen a ngi ci der yu mel noonu di ko faj xam naa mm-hmm. dina ci am yoo xam sax dinañ leen të ndax am na yoo xam wax dëgg yàlla chronique na chronique boo xam ku ko bëgg bëgg a faj di nga sonn kon yéen sonn ngeen ci trop ngeen wax tamit ku mel ni ministre de la santé boo leen gisanteeg moom ngeen wax ko yenn publicité yi ci télé yi nañ ko bàyyi ñi nga xam nag dañoo yor seeni chaîne YouTube ak yooyu ñoo fa nekk yaay yay jóge Vietnam ñoom ñoo koy publicité fan yi mm-hmm. nga xam dangay ngay jël rek affaire bi lal ci 16 heures nga xool li mu weex taal. Hmm. Euh, yaay ñooñ bu ko xale yi jigéen yi nga xam taal rek ah. lañ bëgg. te góor yi tamit wax na ko moroomu góoram yi. Hmm. ñu baal ma nag ñoom ñoom dañoo bëgg ko xees. Ah. da ngay toog fële. nga romb leen sax ñuul comme man beneen keneen romb ne xees taal ñun ko awaay ah, jeeg day weex waay léegi na man bu ma ragalu yàlla yaay il faut ma dem rocceeku ci wala nga dégg sax ci koñ bi ñu ngi ngoronte ku xees pecc mhm. di ko taseeg yow yow na marché bu yàggee tam da ngay bu yàggee tamit dangay ngay kii ndax da nga naan waaw dañ ñaa xale yu góor yëpp wax dëgg yàlla kee xees lañ jël ah. bu dee koo nga xam dafa sëy ba yàgg yàlla weddi sëy ba borom këram génn àdduna wala euh, borom këram ñu tàqali ko mm-hmm. moom itam lu muy jëkk a def naa gaaw xolleeku mm-hmm. ndax góor ñi man maa xoolaat góor ñi nag tamit ñoom itam kenn da leen rawul boo leen ñu mënee dimbali <laughs> suñu càmmee ngeen di li seen morom jigéen mm, mm, góor ñi bu fekkente ne soxna bu yaram bi yàqu dafa ñëw ngeen ni ko wool ma sa borom kër mm. ñu woo borom kër gi mun ko kii kat maa ngi koy faj wante comme maa ngi faj der bi na ko dimbali jàppale ko ci rek ba lépp loo xam daf ko daan di woo muy roccee deram nga jàppale ko ba mënatu koo kii ba bu mu ko jëlati ndax man bu ma dee xeesa ba yàgg ma arrêté sama borom kër du muy ki i jeeg yaa ngi ñuul de yii moom yii moom sopp ko ci yow <laughs> bu ko defee tamit man lu mu ma yàq yàq yàq sama yaram. Mhm. damay dem jëndiwaat yoo xam daf koy xolli. Mhm. ngeen di woo waxtaan ci ak ministère de la santé. Mhm. waxtaan ci tamit ak ñi nga xam ñoo di borom kër yéen yi nga xam yéen a ngi fas faj yu mel noonu. ndax docteur am na ñoo xam ne samay moroom lañu. mais buñ génnee tey buggatoo leen a xool. ndax kanam gi di mel yàqu nañu. ñoom sax ñu ci bari dañuy jël kol sax muuru waale masque waale fii. takk masque muur di nga xam bët yi daanaka moom kese feeñ. boo leen seenee teg leen nimsa ki mhm. mënatuñu génn ca dara waralu ko lu dul xeesal bi nga xam moo daan ñoom lañ doon def mhm. ngeen jàpp leen ci ministère de la santé ngeen waxtaan ci ak moom mhm. ñu wàññi yenn publicité yi xëy na bu ko eggalee fu mu ko war a eggale ñi ñi nga xam nag ñoo yor seen i télé yi kii tamit Euh, télé privé daanaka kenn du leen ci ku leen ko mën a tere mais suñ télé bu mag bi nga xam ñun ñëpp moom la ñu seetaan bu mu fa dawati mm-hmm. bu ko defee série yi tamit ñu dimbali ñu di jël xale yi jigéen yi nga xam ñuul nañu ñu leen ñu leen di wone ñu leen di wone bu ko defee mm-hmm. yenn xale yi ci koñ yi ndax ñoom ñëpp ñu ngi ki téléfilm yi dinañ mën a wàññi yenn yi mm-hmm, oustaz wax lu am solo yaay ndeke xoolal jalis ni mu baree léegi xoolal ni mu baree yaay koo gis nee na sama tànk yi sama yax yi dafa fanax damaa màgget ca juddoogu ma nekk te yoo dara waralu ko lu dul li nga xam ne moo de xeesal yu bari kon yaay ñi ngi koy jiiñ lekk yi nekk du mm, lekk yi ci produit yi la nekk euh, mu mel ni daal docteur loo leen gën a mën a yaatal seen i jataay jar na sax ya docteur nga jël sa micro taxaw ci mbedd yi di wax mm, ah, <laughs> ñu lay ngeen di ñaan ay émission ci télé yi rawatina télé yu mag yi nga xam ne ñëpp leen di seetaan ngeen ñaan émission di fa wax yu mel nii <laughs> bu yàggee jigéen nañ wàll ndax dinañ wiññeeku ndax seen loxo bakkan yi tamit dañ koo xaw a su yàggee ca tey xëy na ni tele bi demee la mhm. mais ñi euh, vidéo yi fi ñoom Aline doon wane mhm. loolu yaakaar naan jigéen bi xeesal ca di ko gis mhm. dëkk sa koñ di gis ku mel noonu wala ngay dem ci marché yi di taseeg ñu mel noonu wala nga dugg ci kaar di taseeg ñu mel noonu di nga wàññi bu baax a baax docteur daal loo gën a yaatal say média say sa bopp ci média yi du doy nga wax yu mel ni ndax lu bari dañoo réer am solo waaw dafa def micro trottoir di def yu mel nii. Oh, <laughs> <laughs> ah, jërëjëf macha allah euh, am na solo Fatima li nga wax nii. Mm-hmm. parce que man tamit euh, wax dëgg yàlla maa ngi yàgg tuuti ci àdduna maa ngi gis. Mm-hmm. maa ngi gisoon ay jigéen ñoo xam ne jamono yële yàgg na tuuti boo war na jege 30 ans ñu ngi doon jënd ay garab ay doom yu sew di ko naan ngir yaram. Mm-hmm. booba ñu ngi koy naan nag pendant des années yaram ñëwul. léegi nag laa gis ne yaram wa nag ñëw na. sonn nañu lool. kenn ku ne fa mu boof. mënu mhm. faa jóg. wàcc escalier yi du ko def mhm. xanaa ñu meeb ko. Mhm. buy jël taxi taxi bi dañ koy indi ba ci bunt bi ndax moom mënut a dem ba ci tali bi ñuy jëlee taxi man gis naa ko. am na ñoo xam ne tey jii toll nañu foo xam ne. téere bu ne takk nañ ko ci seen tànk yi tànk bu ci nem ngi day ni gën. dëgg la mooy li docteur wax ni sànq rek. toll tey metti na. li docteur wax sànq rek laa wax day na ni gën. léegi nag téere bu ne. béjjén bu ne ñu ngi ko takk ca tànk ma ne lii du béjjén yéen garab ngeen <laughs> doon naan jamonoy nangam bobit ma yooyu te yéen saa ngeen may ma ci ma bañ parce que man tamit man lu ma xamul duma ko nangu dëgg la man dama nangu man li ma xam rek ma di ko def waaye lu ma mm. xamul du ko nangu booba temps bu ñuy naan li ma mayaale dama sew dafa xew bi ku nekk ay waratul am ay ndoo ay naka këlu poobar nga <laughs> jigéen nag dafa doy waar jigéen daal xaw ma dafa bëgg boppam waaye daal damaa ragal ne fi ma dafa yaay lépp góor ñee ñu ko maa ngi ñëw ak sama yeneen laaj de ok euh, allah tey dinañ la sonal euh, Fatima li am na solo mooy euh, ñun suñu association bi comme ni ma ko waxoon léegi mm-hmm. aada bi kooku na dundaat de association bi waaw mi ngi dund wax dëgg yàlla ñu ngi def ay activité ñu ngi def ay sensibilisation éducation mm-hmm.

mooy jàpp yax yi ba da koy fënaxal damm da lay yomb articulation yu métti da lay yomb ah. déplacement da lay jafe ah, ah. loolu mooy corticoïde yooyu nag moom tamit mooy indi diabète bi ñuy wax mooy indi tension mm-hmm. mm-hmm. yëpp complication yëpp moo ko indi mm-hmm. cere yeeg réew yi vergetures yi yëpp corticoïde yooyu moo moo moo ko indi allahu akbar war nañu xoolaat suñu bopp jërëjëf ba tey nag ñu ngi ñu ñëwati ci beneen fànn ba muy bopp karaw bi fi mu ne xaw ma ndax ay produits yu ñuy jënd la wala ay affaires yu ñuy këppoo moo xam lu mu doon ci yi ñuy këppoo wala yi ñuy léttoo dem na daal ba jigéen ñi tey jii ñëpp da nel fan da lañ am <laughs> seen bopp am karaw sax karaw far am na ci koo xam ne eh, eh, jëkkër ji da koo takkoon ba mu sëy si eh, jëkkër ji nekk ak moom ba xëy benn suba nag ne ko maa ngi xëy sama caabi fan la nekk ndaw si daal bi mu ne xineet sër bi ba ne ko caabi jaa ngi fii ak fii mu ne ko kan yow la diw jëlal sa bagage <laughs> takkal sa bagage boobu ba daa wattu wattu ndekk yi mu doon yenu yooyu itam am na chimique de docteur. oui am na am na si parce que bon ay ay ay comme per yu ñuy wax. Euh, soo ko tegee. Mhm. Euh, une fois deux fois normalement da nga ko war a désinfecter da nga ko war a nettoyer. Hmm le léegi dañ koy jël rek. continuer këppoo mm-hmm. këppoo di peñee rek. waaw eh, périg yooyu dèjà yow xamoo fi mu mm-hmm. est-ce que fi mu jógee ki amone parce que c'est des c'est des c'est des choses humain mm-hmm. ay nit ñoko ko doon. ñoo ko defoon seen bopp dindi ko mm-hmm. ñu defar ko avant ak Sénégal mm-hmm. ñooñu ñi ko amoon ñooñu xamoo lan moo nekkoon seen bopp xamoo amoon mm-hmm. nañ ay champignon xamoon na ay feebar seen bopp ñu jël rek ñu jox la nga di këppoo te nag champignon yooyu nag moo lay wàll ah. wàll sa bopp mooy def ñu wax naan teeñ ki chevelu teeñ boobu nag mooy dagg karaw yëpp ah dootu am am benn karaw nga defee yow tu obligé nga continuer si si si te déjà këpp bi ñu koy këppoo chaque jour chaque jour chaque jour day dem ba indi humidité. Mm. humidité boobu day dem ba indi yenn xeet yoo xam ne. présent mm. ma sa deru bopp dootul noy yi bopp mm-hmm. boo jegee nit sax toogal sax. Mm. day xeeñ mu xeeñ. Mm-hmm. voilà loolu yëpp ah. mi ngi mi ngi parce que fi muy jógee la doo xam mm-hmm. réellement. lan moo lan moo fa nekk. wallaahi infection la amoon si boppam. jël lekk jox la ñu teg sa bopp. loolu tamit. nag mooy mooy waral lool quoi. dëgg la dëgg la dëgg la defe naa ki yi ñuy këpp perruque yeeg yi yooyu xaw ma nu mu tudd cheveux yi. Mm-hmm. dafa ci am yoo xam ne yu ñuy liggéey la par caoutchouc ak yoo xam ne ñu ne karawu ñenn ñi la. karawu ñenn ñi nag mën na am dañoo dee comme ni nga ko waxee wala dañoo am mm-hmm. feebar. yow nga jël rek nga yenu jël yenu loolu garaaw la. te désinfecté wuñ ko nettoyé wuñ ko dañuy jël rek fomp. Mm-hmm. pañe jox la. nga teg xamoo. ki amoon lan moo ko rey. allahu ak ñun ñu ngi ci danger. ñu ngi danger mag danger bu mag. feebar yu bari yi at yi at yi at yi ni mu mel ni mu mel si jigéen ni mu mm-hmm. bare. non musul am loolu moo ko musul moo ko waral docteur yàlla fey la dama gisoon benn débat ci télé. billaay li nga wax loolu la wax. dama gisoon benn débat débat bi sax li tax ma suivre ko mooy dama gis benn conférencier bu mën conférence ndeysaan xam nga ñun loolu rek la ñu bëgg kuy naan xaala laahu xaala rasul ma toog fa nag déglu. waaye boo dégloo ba pare rek daal di am nag ba mu paree benn docteur daal di présenté wu ne ne mooy directeur xaw ma hôpital principal keneen ku nekk moom tam njiit ci hôpital La Dantec kii daal di ne hôpital Fann njiit la fa. kenn ku ne jël na parole mais kenn ki ma ci neex dafa ne eh, ñoom ñu nekk hôpital nee bu ñu la indilee cent femmes téeméeri jigéen nee na juróom yi la yàlla tëral. mais nee na juróom-ñetti fukk yi ak juróom-ñeent fukk yi ak juróom ñoom ñoo fi indi seen bopp maanaam lan leen feebarloo ñoo ko def hmm. ñoo ko diwoo comme ni nga wax ni ñoo ko yenu mu nga ñoo ko lekk xam naa lekk itam di nga laal tuuti balaa muy fin donc kon ñu nga xam ne ñun li ñu feebarloo léegi comme ni nga ko waxee jigéen da daan dund ba quatre-vingts ans dara du ko jàpp koom hmm. bu xeesalee ba dóor tus ngelam nii rafet hmm. dóor musóoram sunu mag yi noonu lañ meloon ba quatre-vingts ans dara dara du len métti du bëñ du yax du ner du dara tension aussi tension léegi la feeñ kon yi feeñ ni kon ñun ñoo ci dugg mais wax deug yalla yalla teguñu ñuko euh, mu ngi non kon lolu mom dama ko mos a seetaan ci ben débat yeen ngeen wax ko yeen docteur yi te lolu nga fédali fi lolu mo am lolu lolu loolu moo am loolu mo am lolu mo euh, am docteur ma laaj la ben laaj ñun dañ ci xawa a jaaxle tuuti pour dañ na sangu ñii ne ndox mu tàng moo gën di ko sangoo toujours donte kon dafa tàng ñii ne ba gën mooy ndox mu sedd nga koy sangoo toujours donte kon dafa sedd ban ci ñaar yooyu nag moo gën. bon. Euh, docteur sama laaj yi baal ma <laughs> bon question de convenance la que gëw ni am na influence bu bari. si si si si santé quoi même boo gisee sax ñu koy wax naan boo xëyee nga naan ndox mu tàng nga naan euh, nga sangoo ndox mu tàng. Mhm. c'est vrai que peut-être que moo gën a moo lay gën a sawarloo. Mhm. mais ku nii ndax am na incidence bu bari bari bari bari si santé quoi. Mhm. ndox mu tàng ba wala ñàkk ndox mu tàng bi je pense pas que ni euh, am na am na am na incidence am na. solo trop trop trop trop trop pour nga mëna sangoo ndox mu tàng ak wala eh, nga mëna a ñàkk ndox mu tàng nga nga ndox sangoo ndox mu sedd quoi parce que ñaar yépp boo si parce que am ñoo xam da naan la sangoo ndox mu sedd bi nga xëy sangoo ko moo gën am ñoo xam da la nga sangoo ndox mu tàng bi moo gën donc mais vraiment amuñ ay études yoo xam ni yoo xam ni yi confirmé nga ñun scientifique danaan am étude boo xam ni mhm. eh, def nañ ko trouvé na lii souvenir lii ñu noonu la ñu doxee. Mhm. mais par exemple li ñu dégg léegi ñun ñu ne par exemple ndox mu tàng baax baax na ñu am ay fu ko wéer. Mhm. doog a mun a xam ni par exemple ndox mu tàng bii baax na moo gën a baax wala ndox mu sedd bii moo gën a baax. Mhm. études yooyu je pense que gis gisuñu gisuñu gisuñu ko suñu toll gisuñu suñu toll nii étude mu tàng bi moo gën a baax wala ndox mu sedd bi loolu amul loo ci sango daal lu sa yaram ñeme rek baax na waa kay jërëjëf docteur fi may mooy euh, dafa am ñoo xam ne euh, dañuy ñuul nii ñu am benn tache bu tuuti bu xonq seen yaram mais pendant des années bu xonq boobu day dem ba nit ki mujj xonq coy ba boo ko xamoon yow di nga ko rombaat nga ne kii xam nga ko ñu ne la xankay ah, diw la fekk moom nekk na tubaab léegi léegi loolu tache yooyu loolu am ngeen ci solution wala euh, waaw tache tache yooyu souvent jib lay doon vitiligo Mm-hmm. vitiligo lay doon jip lay doon bon loolu souvent jip lañ koy wax si olof. Mm-hmm. Ah, voilà jib jib la héréditaire souvent dañ koy wàll si famille. Mm-hmm. sa yaay da koy am wala say maam nga am ko. mun na nekk fépp si yaram bi nag quoi mais dafay law. day nekk commencé benn tâche bu ndaw. après mooy law ba ba ba fës si yaram yëpp quoi mais loolu aussi am na si traitement boo boo ñëwee.

macha allah macha allah jërëjëf docteur vraiment baal ñu àq ci déplacement bi baal ñu àq ci sonal gi ñu la sonal laaj bu ne laaj nañ la ko <laughs> waaye bëggoon rek jigéen ñi jëriñu te dafa mel ni tey jii jigéen ñi dinañ ci jëriñu bu baax a baax a baax dinañ moytu lu bëree bëree mhm. parce que dafa jaadu docteur ñi lay gërëm di la sant bu baax sa kàddu yu mujjee Eh, jërëjëf maa ngi vraiment kontaan naa si invitation bi. maa maa leen di remercier bu baax. si li ngeen li ngeen ma permettre permettre permettre permettre permettre ma mën a wax ak euh, jigéen ñi. mën a mhm. wax ak euh, góor ñi.

yenn produit soxlawul yenn xaalis bu bari bi pour nga am teint bu rafet mën nga am teint bu rafet te doo frais xaalis mën nga am teint bu rafet te doo si fare dara mhm. boo sangoo ba set jiw boo am jiw bu hydraté boo li mu soxla rek mooy nga hydraté ko mhm. kese la soxla soxlawul leneen mhm. donc leneen lépp loo si def loo xam ne da koy yàq te boo ko yàqee boobu ba mu am complication yi faj complication yooyu dina metti metti bo xam da nga nan suma xamone xamoon. ci dugg ci dugg lay dëgg la lay dëgg la ak bari ñu ko reccu benen bi moy mhm. fexe nguur gi fexe suñu ministère de la santé. Mhm. jappalé ñu ci publicité. Mhm. produits dépigmentants yooyu. nga xam ni au moins les télévisions ñu genn ay mesures yo xam ay lois yo xam ne. ku bëgg publicité au moins doo dem télé yi. mën ngaa dem si réseaux sociaux yi bu la neexee dem feneen mais si au moins télé yi nga xam ne national la. Mm-hmm. Sénégalais yi di ko seetaan au moins bañ faa publicité. ci produit les produits alimentaires sincèrement. merci beaucoup loolu daal moo sama kàddu bu mujj quoi. merci beaucoup leen gërëm leen sant si invitation bi quoi kontaan encore une merci vraiment jërëjëf jërëjëf tey jëriñu nañu lu rëy a rëy loo xam ne ñun tey mu tey nañ ko jàng daal ñun mosuñu ko xam. <coughs> dégg nañ fa tey macha allah jazakumullahu xeyran yàlla mi am pay yàlla na la yàlla fay. jërëjëf kon Fatima looy tàggoo eh, defe naa ne daan nga dégg man mos naa ko lire sax ci benn bouquin dañ ne woon jigéen ñi Afrique yu ñuul yi. Mali ñoo ci dàq jigéen à part Mali Sénégal ñoo ci dàq jigéen mais tey c'est le suñ jigéen ñi tey ku bàyyi diw rek nga xam ne ñun ñoo <laughs> fa gën a ñaaw kay baa jërëjëf jërëjëf jërëjëf ku bàyyi diw ñu xàmmee la ñu xàmmee la ñu xàmmee la ku ci feebar tax nga ne amul ngor ndax dëgg la waaw diw waaw loolu la nga fekk sa nit koo xamoon bu baax mhm. bu feebar boo demee dootoo ko xàmmee boo ne lii bi na la mhm. mu ngi ne déedéet nga ne du kii laay seet seetal leen ma beneen saal fekk moo <laughs> moom dëgg la waaw dafa feebar mm-hmm. xam ne dëgg la nit doon sa sa sa naturel rek mm-hmm. mm-hmm, yaay xanaa di gërëm docteur rek macha allah ci nga xam ne moom lañ jot a indi xanaa suñu yeneen question yi bu paree ñu laaj ko ko hors antenne <laughs> naa ne temps bi jeex na di ko gërëm yaay ci lim indi macha allah yaay muy lu bari yoo xam ni xamuñu ko ci woon ñun dañu jàppoon ne rek Euh, boo xeesalee. bu ni mu yàqee sa yaram ak yooyu yëpp lañ ci jàppoon. dëkk loo xam mun na indi yàq yu nëb yàq yu fanax. mun na indi waa ci yàq say neer. Mm-hmm. mun na indi nga ëmb sax mu avorté. Ah, yooyu yëpp mun na koo indi. kon xam na bu ko fekkente ni jigéen yëg nag rawatina yaay seen mm-hmm. cheveux yi nii teg. mën na mooy tax ñu ñu ñëpp amatuñ karaw bi nit ñi commencé di meesu yaa xam nga bu njëkk suñu maam yeeg yooyu bi nga xam dañ doon létt létt karaw rek seen dañu bare woon karaw hmm. dañuy diw ba mu li mais bi ñu indilee ay produits yuñ ciy yuñ koy raxase indi yuñ ciy teg ci lañ jële yi li ñu dal dañoo amoon jàmm 200 hmm. francs rek ngay euh, fay dem létt yi hmm. léegi nga dem ci salon bi ñu defaral la sa bopp diwal la ci yu kenn xamul bul sonn cheveux ay 600000 ay 300000 ay cent 100000 bu yow ñoom yi la naan ñoom moom lañ ci def sax da nga leen di yërëm ndax lii naka lañ ko ciy defee demoon jënd fee sa léttu say tibb jënd fee sa benn kolu 3000 wala sa kolu 5000 wala bu 1000 francs nga kolu dem. Hmm. defaale santaane yàlla yaakaar naa ni loolu amul lu ko gën. kon docteur indi nañ ci yu mel nii. ci cheveux yi nii teg ak yi nii teg ci monté seen yaay yi seen xef yi lant yi yooyu yëpp nga xam fa muy mujjee mooy yàq say bët ñu ci bare bare yow da ngay ñoom di ko waxtaan sax ñun ii diw xew diw ba de mm-hmm. tegg sama xef yi ndax sama bët yi mi ngi doon jooy mi ngi doon def nangam doo ko attan xappal mu dis kan comme docteur indil nañ ñu mel nii nag ñoo ngi koy ñaanal yàlla seen yàlla yokk jàppandal leen yokk seen kàttan dëgëral leen ba liñ bëgg def yëpp incha allah ñu def ko moom ak mbokki docteur yi nga xam xam ne ay dermatologue lañu ci li nga xam noonu lañ bëgg jigéen ñi delluwaat am seen po bu nga xam ne po bu baax lay doon ndax wax dëgg yàlla yaay yaakaar naa ne yaram toppatoo ko jël saabu sangu génn diw sa diw bu simple diw bu naturel génn dem sa yoon nga xam noonu ngay màggaale ak sa der rawat bokkut ak der boo nga xam yow ba nga amee vingt ans wala dix-huit ans ba léegi yaa ngi ko ciy sëf ay diw nga am 40 ans ku la giseen defee yow mii mooy loolu yaakaar naa ne am na loo xam moom moo ko tane mm. xëy na dinañ utiliser suñu xel yi. Mm. ba nga xam li fi docteur waxee beneen moroomu docteur am bu ko waxee nit ñi bu ñàggee dégg rek incha allah mm. bëgg nañ seen wér gu bëgg nañ seen wér gu yaram mm-hmm. dinañ sàmmoonte ak loolu. Mm-hmm. kon docteur ñu ngi lay jaajëfal. Mm-hmm. yàlla na yàlla def lépp ay tuyaaba def ko sa misaanu xasanaat yaay ñoo ngi lay ñaanal yow tawfiq tey si rafet salaam ak naja noonu lañ koy ñaanalaale ñi nga xam ñoom ñoo doon seetaan yépp ak caméraman techniciens yi. ñoom ñëpp ñu ngi leen di jëfal di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah Fatima jërëjëfati yal na yàlla fay la mu mel ni nag euh, lii yeete la rek ndax dañoo toll foo xam ne dama naan phase finale la jigéen ñi fii moom bu ñu ko dépassé xaw ma fan lañ jëmati. Mm-hmm. ndax jigéen boo demee ba sa yëpp yàqu na. Euh, te nañu xam ne li ca kanam leen kenn xamul. Mm-hmm. mën nga xeesal ba mel noonu def benn choc hôpital léegi am na opération yu ñu la war a defal te kenn la mm-hmm. mën a ñaw mm-hmm. yenn saa yi nga toll foo xam ne ci xeesal aussi nga am di boo xam ne mu ngi sa yaram day laaj opération bu ñu la programmé kenn du la mën parce que man gis naa benn jigéen boo xam ne ndeysaan opéré nañ ko neuf fois mais boo ñëwee rek day xëtt maanaam boo ñëwee rek day xëtt der baa na ah der bi fekk yàqu na donc yooyu war nañ koo mën a moytu bu baax a baax mu mel ni jigéen comme ni ko docteur waxee jigéen daawul feebar man li ma gis man ci sunu génération jigéen du feebar jigéen euh, fenn rek lay toll ñu ne jigéenu wérul la mooy dafa ëmb à ëmb na wasin na jigéen du feebar day dem ba quatre vingt ans di doxi soxlaam di lekk lu ko neex du am benn problème ñu naan euh, dafa jabet ak juróom-ñaari kudd lay lekk ak juróomi kuddoo euh, dafa dafa suukar ak dafa dafa dafa am tension yooyu yëpp daawul am. lekk ba mu mag yi dañ daan lekk ba mu mm-hmm. fekk dara lu leen neex nag mën nañ ko lekk. tey jii tey doo lekk lii doo lekk lale eh, yooyu yëpp fekk eh, sa yaram moo yàqu ci ay produits yoo doon def dara jaru ko vraiment ñuy eh, kontaan lool ci docteur teewaayam mu doon njëriñ lu bari ci jigéen ñi waaye émission bi nag ñu ciy gërëm ñoo xam ne dañoo jàppoon ci émission bi nag ku ci mel ni sama nen ne soxna faatu Bintu juuf ma Bintu Faye madame Diouf Euh, kooku sax bokk na ci li tax ñu mën a am docteur macha allah ñu ngi koy gërëm bu baax di gërëm soxna Mati moom tam depuis France moom tam jàpp na ci émission bi ndax mu ngi ñu doon won ay vidéo yoo xam ne euh, mësuñu ko xam waaye di ci gërëm itam soxna maam jaare Dieng moom tamit macha allah euh, wonoon nañu vidéo yu bari yoo xam ne ñun sax suñu xam musul egg foofu kon jàpp nañ ci émission ba tax ñu tëral émission bi ci wàllu der Fatima yow tam jàpp nga ci yann yàlla fay la docteur ñu gërëmaat la bu baax masawu la coono fi nga jógee sore na waaye fii tamit xaw na xëcc waaye li nga fi indi ci xam-xam euh, li day wane ne jàng rek kay dëgg kon dañu war a jàng bu ñu jàngee defe naa lii nag femme intellectuelle yi duñ ko def lii nii man ñun jaaxil yi rek ñoo ci nekk mais man dama gis docteur yi docteur yi duñ ko def man damay faral di dem hôpital ñu ngi seen teint naturel doo gis sax ñuy def ay posé xef nii man gisuma ko ci docteur yi lu gën a bari boobu xaj na sama gis-gis moo demee foofu gisuma yi tamit ñuy dem di yokk seen i bind ak yooyu ñoom ñu ngi toujours ñu ngi naturel donc ñi jàng bokkuñu moo tax yàlla ne hal yastawi allazina yaalamun wallazina laa yaalamun est ce que ñi jàng yàlla dafa posé question est que ñi jàng ak ñi jàngul danañ nekk benn da ngay tontu nga ne déedéet ñi jàng ñuy jàngul waruñu nekk benn moo tax jàng tam xam dafay am solo boo jàngee ba xam chimique li muy jëriñ ci nit li mu li mu mun a def yàq ci nit di nga moytu loo xam ne chimique la nga jël ci sunu saabu bi boo paree nga diw sa diw bu simple nga dem sa yoon toujours da ngay rafet toujours yaa ngi rafet yal nañu yàlla may dégg ak topp ñu leen di gërëm bu baax a baax ci ànd bi ci eh, émission bi di gërëm ñëpp macha allah di sant ñëpp euh, di leen jox tase incha allah semaine bi di ñëw

गम् जी गञ्जक सही